ñun cadre de concertation des syndicats des sociétés parapubliques nous avons composé Saeb, ISRA ANIDA Ankar, DPV SODAGRI INP et GTS SA Nous avons ko sos Nous ko mooy dafa am lu ñu seetlu loo xamante ne nii nguur gi daf ñoo fàtte ndaxte olof njaay dafa ne mbaam gàtt na waaye si jur gi la bokk si loolu nag ñun ñoo xam ñooy représenté travailleurs yi ma wax bi ñu seetloo am na ay am nañ naqar lool bu kenn xamul fa layam ndax fàtte bi ñu président fàtte xam naa sax du fàtte yaakaar naa ne yëf yi mu ngi ci yoon bi waaye dañ nekk ci jamono boo xamante ne nii il faut nga yëglu moo waral suñu lii moo moo waral suñu woote bi tey di yëglu nag kilifa réew mi di suñu kilifa di kilifa bépp sénégalais ak bépp citoyen muy le président son excellence le président Macky Sall ndax seetlu leen na fan yi yëpp am na ay yokkute yu am si salaire ñuy liggéeyal nguur gi ak salaire ñuy liggéeyal ay ñi nga euh, ñuy euh, ñu dul nguur secteur privé ñu constaté loolu ñun ñi nga xamante ci nguur gi suñu kilifa am le secteur parapublic ñun ba léegi gisuguñu dara dégguñu dara te nag kenn mënul wax yokkute Sénégal kenn mënul wax développement Sénégal te tudd ci secteur parapublic bu agriculture bu yor mbay mi ndaxte dégg na balaa ngay xalaat da ngaa lekk ba suur balaa ngay taxaw da lekk ba suur balaa ngay wér sax da lekk ba suur te yokkal nañ ñi nga xamante ni ñooy suñu wér gi yaram yokkal ñi xam ne ñooy payooru ñooy ñooy ñooy liggéeyal nguur gi ñun ñu fàtte ñu. loolu moo tax ñuy fàttali président nekkat sa njaboot gi ñu ngi yëglu ndax mettit bi métti na lool ndaxte yokkute bi am ci àdduna bi dañoo dañoo dañoo nekk as gor rek te bëgguñu goree moo tax ñuy ñaan suñu kilifa mu geesuñu bu baax a baax a baax yokkal ni suñu salaire ñun secteur parapublique ñun secteur parapublic ñi ma cité léegi ñoom ñoo ko waaye bépp secteur parapublique ñi leen di woote ci lañ bokk pour rappel rek pour fàttali yokkute payoor yi nga xamante nii yokkal nañ ko ñuy liggéeyal jàmbur yi en 2020 yokkal nañ leen seen salaire am na jagle yi nga xam ne jagleel nañ ko suñu natango yu ligéyal affaireu mbay mi té seen kilifa nek suñu kilifa du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural té tamit yokkal nañu ñi ligéyal nguur gi tout récemment ñep yeen ñep xam ngeen né yokkal nañ leen té ñun ba légui kenn waxu suñu dara